Serigne Amdi Fall moom Serigne Mët Fall Mbenda tey jii moom la yàlla def mooy xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall kon nañ ko ñaanal mu yàgg fii gudd fan téer ah, lii fi xew nag ba tax moom mu dox fi tey lu ñu suñu borom booleel la mënut a ñàkk kër gu ne lay nekk sëriñ am ni nii Daara Xuddoos la nekkoon te waajuram moo ko fa bàyyi woon muy sëriñ Modou Fall benn loolee nag la doon doxal ba nëgë bi mu demee ba nekk maam Cheikh Ibra Fall moom mii toog nag sëriñ Abdourahman Mbacke mi kilifaam moo ko jox ndigal ni ko xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall xalifa sëriñ Touba rek ko a yilif dara du jóg ci sama digg la ma leen daan defloo ak la ma leen daan waxloo ak la ma leen daan sant loola lépp bu jotee danaa leen ko sant waaye nag sëriñ Amdi jébbal naa ko Serigne Mountakha Bassirou bi di xalifa Serigne Touba ndax xalifa Serigne Touba xalifa Cheikh Ibrahima Fall maam Cheikh Ibrahima Fall xalifa Serigne Touba rek moo ko mën a yëlif ndax bu ndigal jógee kër Serigne Touba ka fa nekkal Cheikh Ibra rek foofu la ndigal la jëm hmm.